بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk jullit yi ñoo ngi nii ñëpp di ñaan yàlla mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira ñu ñëwaat ak yéen ci muwatta imam malik ñu nekkoon ak yéen ci kitaabul kalaam téere bi muy jàngalee lu jëm ci wax bunt bi ñu nekk nag moo di baabu ma yukrahu min al kalaami bi gayri dikrillah bunt bii lim fiy jàngale mooy li ñu sib ci wax lu dul mu nekk ci tudd yàlla kuy wax daal ba génn tudd yàlla mu ni sàmmal sa kàddu imaam malik nee na yaxya ibni yaxya layti mooy wax ni wa xaddathani an malik mu ne imaam malik nettali na ma annahu balaga ni moom day jot na ko agsi na ci moom fore na ci wewu bëy anna isa bna maryama kaana yaqul mu ne isa bnu maryam daana wax ne laa tuksiru alkalaama bi gayri dikrillah bu leen baril wax lu dul ci lii di tudd yàlla subhaanahu wa taala fa taqsuwa qulubukum ndax bu leen ko defee seen xol yi dana wow de fa inna alqalba alqaasi baidun min allah nee na lii di xol bu wow nag ku sor yàlla lay doon ku sa xol wow nga sor yàlla walakin laa taalamun waaye doo leen ko yëkk doo leen ko xam wala tanzuru fi dunubi nnaasi ka annakum arbaab nee na bu leen xool bàkkaari jaam ñi mel ni yéen yàlla far anduru fi dunubikum ka annakum abid nee na xool leen seeni bàkkaar mel ni ay jaam ngeen fa innama annaasu mubtalan wa muaafa nee na nit ñi daal ñaar lañu koo xam ni dañ koo nattu ak koo xam ni moo ngi ci aafiya farxamu ahla albala waxmadu ala waxmadullaha ala al aafiya nee na ñii nekk ci balaa muy nattu yërëm leen leen waaye ku ne ci aafiya santal sa borom yàlla subhaanahu wa taala kon imaam malik nee na balagahu anna isa bna maryam for na ci wewu bay ci suñ waxiin for na ci wewu bay imaam malik ñu wax ne isa wax na nangam imaam malik ak seydna isa ay téeméeri téeméeri at dox seen diggante kan moo nettali imaam malik ba mu yegg foofa waaye fii loolu duñu amal solo lool lu tax loolu moo di bunt bi ko imaam malik dugal te mooy bunt waaraateeg ñaax kon boroom xam-xam yi léeg-léeg ñu indi wax joo xam ne du jokkaloo day dagg maanaam duñ duñ wax ka leen nettali xam nga ne for naa ci wewu bay loolu kenn du ci tabax diine waaye nag lii du pour tabax diine waaye lii pour ñaax doomu aadama ji la moo tax boo demee ci téere yeneen yi sax mën nga faa fekk lu koy dëgëral ndax imaam malik lii mu indi daanaka toxal nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana ñëw ci kanam waaye daal li tax mu andi ko mooy li ci nekk ci ak waaraateeg ak ñaax waaye bu nekkoon ni loo xam ni dafa jëm ci alxalaal ak xaraam maanaam lii farata la nga war koo def lii dafa araam nga war koo bàyyi ah lii du ci doy kon lii du ci doy kon imaam malik nee na jële na ci sayyidina isa bnu maryam mu ni laa tuksiru alkalaama bi gayri dikrillah wala boog fore na ci wewu bay ñu ne sayyidina isa moo wax ne bu leen baril lii di wax lu dul ci dikrullah nit ki daal gor du wax ba géex wax ba géex as gor moomewu ko moo tax dañuy gis ñi nga xamante ni bii dañoo mën a wax lool ñi métër bi nii ñime jataay yi ñuy waxe yi te sawar lool ci micro di wax rek 2012 ñu wax 2013 ñuy wax ba 2020 bu ñëwee nag tey ci whatsapp bay comparer lañ doon wax at yooya yépp ak seen jëfi tey ni waaw lii xanaa du diw moo ko waxoon waaw parce que wax jee bari wax su baree rek seytaane am ca cër bu baax sax bu baax a baax comparé ko rek ñi fi doon wax 2012 ba 2020 comparé seen wax yi doo ca gisug dëppoo mukk da ngay gis toujours danga naan xanaa lii diw waxu ko fi woon saa yu ñu tegee beneen vidéo rek nga dar sa gémmiñ ni wax waaw diw xanaa mës ta wax lii mi ngi noonu te nee na boo leen ko defee sax nag fa taqsuwa qulubukum lim leen di yóbbu mooy xol bu wow koŋ boo koy waar dootu la faale am na ñoo xam ne boo xëqanteeg ñoom sax ngir werante ngeen ko bàyyi naa la ak yàlla mun la yàlla nga may bàyyi leen mel ni ku xeeb li nga wax est ce que ab jullit dana yegg ci di xeeb yàlla bàyyi naa la ak yàlla lu yéeme xol boobu nag noonu lay def day dem ba nit ki dootul faale ak waare waaye su ko defee tamit xam-xam dootu ca sax lii di wax ju rafet du ca nekk luy tàqatle rek lay wax waaye doo gis mu wax luy defar su ko defee nag nit ka dal di nekk nit koo xam ni lu bari yàqu na ci moom wala sax nga ni far na yàqu benn yoon lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu fa lam yabqa illa suuratu laxmi wa dami zuhair ibn abi sulma moo ko waxoon ndeysaan nee na nit day ñaar ñaari parti la làmmiñ wi ak xol bi kon nag su su addis bi ne xol bi yàqu na aa mooy sa génn parti yàqu na waaye sax la ko jëkk a yàqu mooy làmmañ wax kon ñaar parti yëpp yàqu na suñu yàqoo nag lan moo des ci nit ki suuratul laxmi wa dami yàpp ak lii di deret yàpp ak deret ñooy des ci doomu aadama ji ndeysaan di dox ci àdduna bi fekk yow yàpp ak deret dong moo des ci yow ndax wax nga wax ba yàqu yàlla nañ ci suñu borom yàlla musal fa inna al qalba al qaasi ndax xol bu wow day moom dafa sori suñ boroom yàlla fa inna al qalba al qaasi baidun min allah sori na yàlla de xol bu sàggan day sori yàlla de ñëw na ci xadis boo xam ne jële nañ ko ci ibnu omar mu ni salaa sallam nee na laa tuksiru l kalaama bi gayri dikrillah kon kii di imam malik li mu toxal salaa sallam wax na lu ñu mel daanaka mi ngi nii di ñëw nee na bu leen bal wax lu dul ci dikrullah fa inna kathrata alkalaami bi gayri dikrillahi qaswatun lil qalb nee na bari looy wax te du dikrullah day day tax sa xol bi day nekk xol bu wow koŋ wa inna abada annaasi min allahi alqalbu alqaasi nee na ki gën a sori nit ñi ci yàlla ki gën a sori yàlla ci doomu aadama yépp nga xam ni moom dafa sori yàlla lool nee na kooku mooy boroom xol bu wow koŋ yàlla nañ ci suñ boroom yàlla musal hadis boobu ibnu omar moo ko net li jële ko ci yonent saa sallam imaamu tirmidi génne na ko waaye wax na hadis bu rafet la kadalika al tuusi imaamu tuusi nee na hadis la boo xam bu rafet la laa tanduru fi dunubi nnaas bàkkaari doomu aadama yi bu leen fa nekk di ko xool bu leen nekk di tuglu doomu aadama yi mel ni dañ leen def ay gendarme pour ngeen di xool lu ñuy def ak lu ñuy bàyyi ci bàkkaar ak di ko waxtaane sax loolu du du du sa cër yow jaam bi loolu du sa cërte ndax kenn du la fay ci loolu ngay def waaw boo ci xëyee ba ngoon jot gont ci mooy xëy moo xam ni amilatu naasu ba doo ci fay salaire de mën nga sax tonne ci ay bàkkaar ndax lan lu baax lu muy def lu mu yaatu yaatu kenn du la ca fay safaan bu muy def lu mu yaatu yaatu kenn du la ko fay fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara ku def lu baax donte dafa toll ni dara ah suñ borom yàlla fay la ko moo xam lu baax la wala safaan nit daal lu mu def du naax saay lépp suñ borom yàlla dana ko fay waaye nag xool leen seeni bàkkaar yéen doomu aadama yi ka annakum abid mel ni ay jaam ngeen yoo xam ni seen sang moo ngi leen di fuklu yónni leen ca waar wa waaye di leen xool nag ah su boobaa nag ngeen war a moytu moo tax wa yuxadirukum allahu nafsa suñ borom yàlla moo ngi leen di moytu la boppam de suñ borom yàlla nee na nañ ko moytu ah loolu moo ngi ci surat al imran fa innama annaasu mubtala nee na nit ñi daal ñaar lañu koo xam ni dañ koo natt natt ko ci yaram wa wala ñu natt ko ci ay bàkkaar natt ko ci yaram wi bari na loolu léegi ñi nga xamante ni dañ leen tudd way laago yi way laago yi soo leen rombee soo leen mënee jàppale ci sa alal def ko te yàlla tax boole ko ñaan-ñaan kii alhamdulillahi alladi aafaani min mabtalaaka bi wa faddalani ala kathirin min man xalaqa tafdila salaa salam loolu la wax ne nañ ko ñaan soo leen rombee kuñ nattu ci yaramam ñaan leen ñaan gii ba nattu ba du leen dal waaye su nekkee kuñ natt la ci bàkkaar nag dana ñëw kon yow mi nga xamante ni bi mu aafan nga yàlla moo ngi la defal xéewal sa yaram dara nekku ci pattuloo pattuloo làggi woo ah war ngaa sant yàlla ci lool de xéewal la goo xam ni fayoo suñ borom yàlla pour mu bàyyi ko ci yow waaye moom ci mbaaxam rek ci la ko bàyyee ci yow ñam ko teg tamit mën naa am gënoo leen wala sax mën naa am ñoom ñoo la gën loolu lépp day dellu ci suñ borom yàlla waaye du ci yow kon farxamu ahlal balaa'i ñi nga xamante ni bii am nañ na toog tiis yërëm leen leen waaye yërëm leen leen olof nee na lekk-lekk yedd yërëm daf koy gën yedd yërëm daf koy gën de aris bi dool na ci leneen nag moom yedd yërëm a ko gën waaye yërëm ñaanal moo koy gën lekk-lekk kon au lieu que nga ne fa di ko yedd yërëm ko yërëm googu na tax nga ñaanal ko suñ borom yàlla génne ko ci nattu bi ak tiis bi nga xamante ni bi ci la nekk waxmadullaha ala al aafiya sant leen yàlla ci lii di aafiya jàmm lu waay am jàmm ko gën sant leen yàlla ci jàmm ji ndax mu sax sant leen yàlla ci jàmm ji ndax mu yaatu talaw ñu ko dund woon dund ko salaa salaam mas naa génn rek ni salullaha al aafiya ñaan leen yàlla lii di aafiya nee na saxaaba yi mel ni ñaan gi daal amul doole ci ñoom mu ni maa utiya ahadun ataan xayran wa awsaa min al aafiya nee na jaam bi di joxuñu ko lu gën aafiya aafiya dara mi du ni dëkk boo gis mu avancé dafa am aafiya jàmm daf faane bu fa jàmm nekkut kenn du xëy jàngi kenn du xëy dem marché kenn du xëy dem ca jàkka kenn du xëy nangam nangam lima la lim lépp su amee rek aafiya moo fa nekk kon aafiya lu rëy la jàmm jàmm ci la lépp xàcc kon nit ki daa war di dox jàmm di ko wax loolu hadis bi ñaax nañ ci bu baax a baax a baax kon xam naa foofu la ñuy taxaw incha allah bu jotaay bi di ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah